ba tey comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, plateau bi tabarkaala madame Lo fekk si nañu fi nga xamante si moo di ci kaw euh, waxtaan wi. Mm-hmm. tabarkaala moom nag damay bàyyi doomu ndeyam jom Sall gari Lam Toor nga xamante ni ñoom ñaar dañoo bëggante ba far nduroo mom mm-hmm. euh, laay bàyyi mu mu dalal ko quoi. ah woo li ma tek teg mooy. Mm-hmm. tey invité nga ko xamante ne nii sama genn wàll. ndeysaan motax yenn question yu xaw sobi sax <laughs> manam duma ci duma ci duma ci duggu dama lay ah, baye déet déet dañ koy tek ci taabal ji de waxtaane ko lay baye mom comme ça yenn yi nga dugg ak mom ci yenn question yeneen question yu woyof yi nak wa legi dalal wa legi dalal ko wa ah, wa maa ngi lay dalal sama plateau comme comme dab yo xam nga yo mo manam nan la ko mën expliquer munoo ñaka tew ci mhm. plateau bi min na yi wa parce que euh, gis nañu foofu laa yem quoi gis nañu. kon ak Sister Z. Euh, di leen ziar bu baax a baax a baax a baax di leen santaat bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax ci plateau bi ngeen ma dalal ma kontaan trop mais li ngeen sol macha allah dafa rafet. da ngeen sañ sa pire dañoo xew nag El Vision rek waaw lii tam. Mhm. macha <laughs> mais nag euh, Sister Z balaa may sori ci ci ci ci ci nuyoo bi euh, dama bëgg ñu ñu am fu ñu dugg man ak yow. parce que ku xam Zeyna loo xam ne mooy jabaru directeur général Elvision Média donc mu am ñaari casquette ci ci kër gi donc mu am casquette u euh, nekk jabaru directeur bi maanaam njaboote ñëpp amaat tamit beneen casquette animatrice ci euh, kër gi donc Zey naka lay naka lay gérer lool ak ak borom këram. macha allah comme ni ma ko waxee woon nag naa fii loo fi diisal rek mu daal diis mais loo fi oyofal rek mu daal di oyof. Mm-hmm. non stress laa koy dundee. Mm. nee naa euh, Zeyna bi nekk ci këram di sëy Zeyna bi nekk ci këram di sëy la. Hmm. mais puissance bi nekk ci biti di liggéey puissance bi nekk ci biti di liggéey te man sama doomu nday sax hélas gisoo bu njëkk daan dem ci <laughs> di di di di filmer ci kii yooyu mais léegi kenn mënatu koo génne fenn. <laughs> mais mais lan la quoi lan lu xew lan nga ko dig da nga napp wala léegi DG daal moom léegi ci wàllu cam euh, monte monte bi la euh, kii léegi xam nga bàyyi njaboot gi ñu ne ci biti mu wane ne moom daal kilifa la daal. non du loolu sax du loolu xam nga moom comme ni ma koy waxee chaque jour moom dafa daal di oyofal boppam. tey sàmm ne ko toogal daal di wut bi. Mhm. comme ni nga ko waxee léegi affaire bi xam mhm. nga dañuy wax ne. kii de jëkkëram da ko ragal wala affaire yooyu noonu. non non mm, mm. chaque jour comme ni may wax. Mm. xale jigéen ñi nañu fexe seen jëkkër yi. ruus leen. parce que jëkkër bu la ragalee bu génnee mbaa nga génn danaan def li may def gaaw balaa sama jëkkër di sama jabar di ñëw mais fekkee dalaa rus bu demee may def dara dina dina dina def yenn yi daal waaw loolu laay bëgg di xale jigéen yi di ko di ko éviter ak jéeg ñi ñuy fexe seen jëkkër yi rus leen ak a jóge damay bëgg loolu waaye waaye ba tey man tamit am naa leen loo xamante ni bëgg naa ko si laaj parce que gis naa ni euh, di sëy koo xamante ne nii amul jot. Hmm. amul temps. Hmm. te suñu euh, xarit yu jigéen ñi wala suñu rakk yu jigéen ñi laa ko mun a waxee. Hmm. bëgg nañu chaque instant di nekk ak yow. papasier yi nii xam nga léeg-léeg bërëmu sa kaw affaire mais yow yàlla boole la koo xamante ne nii yàlla dafa def amul jot amul temps mu ngi ci terrain bi toujours mu ngi ci terrain bi. bu jógee ci terrain bi mu ngi ci studio ay 4 heures du matin lay tëdd. situation yooyu nag nan koy dundee sa biir néegu sëy ah dinañu ma ko dara dama ko comprendre rek xool mm-hmm. ndax bu nekkoon man. Mm-hmm. ndax dafa nekk loo xam ne euh, lu mu bëgg la. Mm-hmm. te dama ko si jàppale pour maanaam mu egg fu fu fu. fu fu kawe njottam daal parfois mu fekk muy liggéey yaa ma gën a xam kott koo fuur koo affaire yooyu noonu xam nga falaale daal waaw daal di dem xam nga pensa ma fekk muy liggéey ma yàq xel mi daal koy këf daal di ko yóbbu yooyu yàgg naa ko fekkee pensa comme ku mel ni bamba wala jom soxla vidéo am toog di jooy ma daal koy bàyyi mu liggéey rek ma daal dem tëdd amul benn problème mais nag mais nag mais nag avant ngay jugee avant ngay jugee kër ga di ñëw ah naka nga préparé euh, ngoon gi naka ngeen ko dundee ba ci reer bi ba ca tëj néeg bi ñëw toog xaar mënumaa egg mais mais naka nga préparé tey bis bi. tey daal lépp simple la. Mm. parce que sànq rek maa ngi koy wax euh, sama njëkke bi. Mm-hmm. di ko nuyu wàllu au passage bu baax muy Maguette Diaw. nee naa ko man tey lan laa war a defar sama njëkkër. Mm. parce que chaque jour maa ngi décoré loolu lañ may wax maa ngi décoré. bay saa ma jékki dem sama néeg ay affaire waa bi di tàq bay saa ma def néeg bi boîte xam nga <laughs> benn jour le maa ne ma tey sama néeg dañ ko soppi euh, boîte man damaa <laughs> damay dugg léeg-léeg ma gis ay lamp yoo xamante ne nii man du studio sax du ma ko man seen lamp yooyu mooy ko mën a indi suñu studio bi ci garaaw DG ne moom du ko yëg ah day jékki-jékki dem rek fekk fekk affaire yi changé quoi mais loolu euh, feeling la ci jigéen wala wala luñ koy digal la mu di ko def wala loolu nu mu demee noonu. waaw loolu feeling la xam nga góor day bëgg yooyu. Mhm. góor day bëgg yooyu parfois góor day bëgg yooyu. Mhm. ci sama góor. Mhm. parce que nga def ay fleur mu tëdd nga sànni ko ko ngeen kaf foo foo xam nga rek daal di làmb soo dëgg neexul. waaw mais man tey moom dama amoon problème vraiment tey lan laa war a def ba sama jëkkër beeg ndax. dama ne sama xel lii moom xanaa war naa kii si bëti moo tax ma def lu simple def lu tubaabe. xam nga daal di koy raxasal tànk yi daal daal di koy def mbaaju bi. am naa lu war na xari nag non dama am lu ma <laughs> métti. yow muñal rek yow muñal rek. mu ñëw nag lépp dina baax incha allah. plateau bi ko nar a yàq. <laughs> non man maay am lu ma daal parce que yii xeeti baax baax ñu fiy wax man munu cee jot munu koo dund man déwén moom bu naree demee nii barki Serigne Touba man damay <laughs> bàyyi. nga fekk damay bàyyi. Mm-hmm. maa ko doon gis muy estati mm-hmm. di def ay mbëggeel ma man sama jëkkër ji moom sama problème. voilà bu dugg ci débat yooyu loolu quoi man ni ma lay rek yow benn affaire laa la bëgg a laa a laaj. Eh. maanaam tey jii ni macha allah. Eh, eh. yaa ngi koy sëy comme ni mu ni mu waree. Mm-hmm. te ñu ngi ñaan yàlla mu mu jëm kanam. Mm-hmm. wante euh, am na ñoo xamante ne ñu ngi seen biir sëy. Mm-hmm. kontaanuñu ko lan nga leen di jox. comme comme leçon de morale. waaw loolu moom si ku góor gi ak si ku jigéen gi la. pinsa nga gis euh, nit am jabar mhm. du kontaan si jabaram mhm. pinsa nga gis nit am jëkkër du kontaan si jëkkëram mhm. man dama jàpp ne euh, ñoom ñoo ko neexalul ku nekk ak yàlla jagleel ko soo euh, am jabar du la may jàmm du la may salaam soo ne salaamaaleykum mën na nangam soo ne salaamaaleykum mën na lii jeex na lii jeex na affaire bi du foofu lépp daal la comme ni ko sama naataango bi toogoon fii bi mu ko waxee woon muy kumbis ni ko nuyu bu baax góor dañ koy dalal góor xale la xelu xale la yor. pensa nga yow sa jëkkër nga gis mu am problème. Mhm. nga woo ko dalal ko mais yow après dangay toog sax di poser question naan xoolal kii ndeysaan bu muy ñëw. Mhm. nii la mhm. meloon nii la meloon mais après dama koo dalal mu toog mel ni xale. acca siste euh, Zeyna demoon na moom it génnoon na ci mbedd bi dugg ci kër yi waxtaan ak euh, soxna yi naka la ñu gisee Saint-Valentin. demoon naa si mbedd bi daal di xool li nga xam ne moom laa jëlee woon ci mbedd bi nañu daal di dem rek ñu daal di xool lu ma leen indi. acca nañu dem. Euh, Saint-Valentin li ma ko gisee mooy feetu c'est la fête des amoureux. feetu ñu bëggante particulière man mi nga xamante ci la nekk sama anniversaire de mariage kon mën naa ne Saint-Valentin maa ko moom. aussi gis nañ ne nit yi dañuy joxe ay cadeaux en général cadeaux yi si euh, couple yu ndaw yi lañ kax daan xam ne waaye nag jéeg ji ñoo gën a moom Saint-Valentin. li si mel ni genre jigéen ñi nga xamante ne dañuy décorer seen néeg yi préparer cadeaux yi pour seen jëkkër yi ñii di préparer cadeaux yi pour seen euh, copain yi Saint-Valentin daal c'est la fête des amoureux feetu ñu bëggante. man nag particulièrement je me dis que ne Saint-Valentin maa ko moom. Ah, saint bi ni ma ko gisee ah, mooy comme par rapport ak ñiy bëggante affaire yooyu noonu waaw xam nga bëggante moom xam ne dafa xew si jamono moom la ñëpp di def waaw loolu tax nag bis boobu ñëpp a koy feete ñiy bëggante ñëpp danañ ko feete daal. Euh, Saint-Valentin ni ma ko gisee mooy euh, bésu mbëggeel la te ku ne mbëggeel ne ñaari nit waa kon dañuy def lu dul bëggante rek ndax euh, ñaari nit bu ñu nekkee dañ daal di bëggante. Euh, waaw ñuy joxante ay cadeau ayca si sa kumbi euh, Zeyna man kumba mi fi toogoon léegi moom a <laughs> ràngati Zey gis nga li nga xamante ni moom nga ñu indil élément bi euh, lan nga ñu mën a wax ci li soxna yi ak xale yu góor yi wax. gis nga wax bi moom benn wax la. Mhm. waxu mbëggeel la rek. Mhm. dafa nekk loo xam ne maanaam dañuy maanaam dañuy féddale waat suñu kóllëre mhm. ci mbëggeel mais saa su ne rek ñu ngi bëggante. wax bi benn wax la daal gis nga rouge noir yaa ngi dàkkee. xam nga mooy loolu daal mag ak rakk bëggante mais yeeg. mais jom sama question man mooy mbëggeel gi maanaam Saint-Valentin bi marié yee ko moom wala célibataire yee ko moom. non xam nga man man nag mbëggeel dama koo yaatal man mbëggeel damay gis ne gars yi entre góor ak jigéen rek lañ koy mhm. souvent dañ koy dañ koy yemale. Mhm. waaye man man man dama koy yaatal. Mhm. parce que di nga bokk nekk bàyyi. daal ci góor waaw moom cofeel maanaam. mu doon sa xarit. su ma gisul sax da lay manqué. dina nga mhm. mel ni yow. Mhm. su ma toogee deux jours gisuma la ma am lu ma manqué. loolu aussi mhm. pour man dañ koy boole ci ci fête bi. parce que nekkul góor ak bu fekkee ne damay ñëw ci diggante góor ak jigéen. Euh, fête ñoom ñaar ñu ko ko bokk. ci ëppale ku ci mooy nag ki nekk ci farata. moo ci ëppale. <laughs> mais man damay dégg ñu naan célibataire yi ci ëppale ndax ñoom ñoo. ndax ñoom ñoo naaxal dégg pareeguma pareeguma pareeguma hmm? damay ñëw. li tax man la ki nekk ci farata moom moo lee mhm. parce que dafa gagné. Mhm. waaw mais fekkee day lewtoo. <laughs> pareegul <laughs> songagul gàllankoor ko faa jëlee. waaw waaw loolu la mën na mais mais mais ñi ko nangu bariwul de. Eh, da génn ñu naan la mbëggeel gi ren da ngay dégg sax kuraan la voilà ren marié dañ koo nangu ci ñun mais ñun célibataire yi ñoo moom Saint-Valentin. Mhm. voilà dañ ko doo comprendre quoi. waaw mais boo gisee feet bi man li ma gën a neex ci fête man gis nga man man man moom man man man chaque jour dama koy dund man noonu laa mel des fois ma dugalee stat ay affaire sax kii du ma bàyyi ma fenn yow bi sax am nga sama whatsapp mhm. mais nit ñi dañ may tooñ na mhm. ma yow moom loo xam mais man man maa bëgg nit ñi di bëggante parce moo ñu war quoi mhm. seytaane bi buñ ko may fu mu yàqee naqam ñun dañoo war a bëggante suñu biir bu ko defee yàlla dafay ñëw li dëgëroon ci ñun yëpp dafay mm-hmm. mujjee woyof mais fii bëggante wuñu mm-hmm. yooyu yooyu ci ay jafe-jafe la ñuy dëkk ndeysaan tabarkàlla mu ngi noonu euh, mu tëje lu am solo mooy ñun ñëpp danoo war a bëggante fonkante jàppante te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey euh, ñoo bokk bàyyi euh, l'émission tire à sa fin comme ni ñu koy waxee li ñu mayoon ci ay waxtu jeex na donc dañuy wax Sister Zé lan ngay tàggoo ah li leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw caméra bi kii nga xam ne moo nekk Fama. war nañ ko may jëkkër nag moom it. <laughs> léegi rek incha allah. <laughs> ah Serigne Sallé bu rob baax bi nuyu naa la bu baax a baax. son bi nag. xale bu xale bu baax moo ko mhm. nekk muy kan muy aje mademoiselle Mendy waaw aje <laughs> moo nekk si son bi di ko mhm. jaajëfal bu baax a baax mhm. di leen wax fii seen loof kontaan naa ci balaa Saint Valentin bi di nag bëgg naa nag sama waa ji nag bii paa ñu invité ko bàyyi ma ñu invité ko <laughs> Diop looy tàggatoo damay kontaan trop euh, ci ci ci jotaay bi di kontaan di gën a kontaan ci waa El Vision parce que ay jàmbaar lañu quoi euh, di ñaax aussi ñu ñuy seetaan ku am sa bos. Mm-hmm. nga la waay fexeel ba kenn bum la ko yàqal. Mm-hmm. parce que ñi lay yàqal. bu kenn yàqal sa óola la waaw ñi lay yàqal <laughs> ñi lay yàqal. Mm-hmm. ñu ngi téye seen bos mooy ci. yow boo nekkee nag ñu lay foowee di la wax lu am ak lu amul ba nga xëy ba sa bos. du ko rëccu. loolu laay tëjee. li may tëjee mooy di ko may sama bos di ko wax ne ko yaa ngi ci xol bi tabarkaala li olof di wax naan picc nga ca kaw waaye xel baa ngi ci suuf maa ngi koy bigo bu baax di ko fóon ay fóon yu pata pata tey nag loolu la ñu leen indiloon ci seen spécial plateau euh, Saint-Valentin ngeen seekoon ci waxtaan ak waa vision Média donc yaakaar naa li ñu fi jot a waxtaanee wala li ñu leen jot a jox neex na leen ñu di leen gërëm bu baax a baax ci teewlu bi di kontaan ci ñi nga xamante ni tabarkaala ñoo nekk ci caméra bi euh, soxna Fama ma koy ñaanal balaa déwén mu ànd ak borom këram ñëw di ñëw di ñëw di filmer plateau bi Serigne Saliou tamit waxi nopp makay koy bu baax baax di béggal ki nga xamanteni mo nekkon ci euh, son bi di euh, Adja euh, aji Mendi tabarkaala moy ma koy béggee bu baax baax rési aladji lo sire ma ca ndam xam-xam ba nga ndam tek ba nga ndam comme nañu koy wax rek tabarkaala ñu koy béggee bu baax baax diko siar diko may nak képp ko xamanteni ni yaangi ci feet gi di bëggante ba mu neex jël leen yéen ko mom tay nak ku nekk ak sa way ci sa biir néeg togal ñu jakarlo waxtaan deug neexul aja bye bye kontaan nañ bu baax baax jaa ngeen jëf